Euh, Budul Diao Baldé Keita di xawma kan euh, moom it joxe na plus de dix millions euh, ngir participation comme Sadio maane ci xeexuk coronavirus bi Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu merci d'être resté chez toi couvre-feu ou pas ñëpp a toog seen i kër fii ci télévision Futur Média daanaka dañoo wàññi effectif bi liggéey lu ci ëpp yéen a ngi ci seeni biir kër massa coono puisque boobu ba tey aussi parallèlement yaa ngi ñuy toppal ay information yoo xamante ni mën nañu koo jàpp dañuy njëkkee ak li ma wax léegi Euh, sportif yeeg mouvement yi nga xamante ni jóg nañu euh, ngir jàppale ministère de la santé et de l'action sociale euh, ci seen xeexuk jàngoro bile di coronavirus bi Modou Ndiaye. Pape Cheikh maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi comme ni nga ko waxee. bari na ci actuellement ni sportif yi nga xamante ni ay internationaux la ñu ñi jël seen li ñu am ci seen doole di ko jàppale li nga xamante ne mooy ministère de la santé jàppale ko Sénégal seen wax nga ko Diao Baldé Keita wax nga ko Ismaïla Sarr mu fële ca Saint-Louis ak kii di euh, Sadio Mané ñoom gi si Dieng ak fondation bi ñoom ñëpp ñu ngi yëkkati li ñu am di ko jàppale li nga xamante ne mooy ministère de la santé du rek koppar gi sax mais parfois ay matériel yi nga xamante ni nit ñi wala ñi nga xamante ni ñooy liggéey personnel de la santé bi dañ koy soxla ngir euh, xeex xeexandoo ñun ñëpp lii di Covid 19. Euh, démb nag ñi nga xamante ne mooy mouvement euh, sportif yi maanaam de délégation bu mag di ko jiite di ministère des sports di Matar Ba ñoo yëkkati en enveloppe bu toll ci cinquante et un euh, millions de francs CFA. teg ko ci loxo kii di Abdoulaye Diouf Sarr di ministre des sports nekk ministre de la santé mu ànd ceeg ministre des sports bi di Matar Ba ñu yëkkati koppar bi nu Euh, daal di koy teg ci loxo ministère euh, de la santé ngir xeexandoo euh, àndandoo xàccandoo dóorandoo li nga xamante ni mooy Covid 19 bi nga xamante ni mën nañ jàpp ni sportif yi des ñu ginnaaw ñoom ñëpp ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax a baax ngir fexe xeexandoo lii di coronavirus bi jóge fii ci Sénégal leneen li ci mën a jàpp ci ndaje boobu ndaxte. mouvement sportif yi dafa dajale li nga xamante ni waa CNOS la ak dajale ñi nga xamante ni ñooy président fédération yi dajale aussi maanaam sportif yëpp ñu dajaloo li boole li ñu am. Euh, def benn enveloppe bu toll ci 51 millions de francs CFA daal di koy teg ci eh, loxoy euh, Abdoulaye Diouf Sarr nekk euh, ministre de la santé actuellement mën nañ jàpp ni sénégalais yëpp ay ay ministre de la santé la ñu ndaxte ñun ñëpp war a mën a àndandoo xeexandoo dóorandoo lii di Covid 19 bi ngir mu jóge fii Pape Cheikh te gis nañ ni sportif yi desuñu ginnaaw ndaxte ñoom ñëpp ñu ngi ciy am taxawaay bu am solo depuis ba nga xamante ne annoncé nañ premier cas bi fii ci Sénégal depuis le 2 et puis euh, leneen loo xamee ni àddina yëpp a koy waxtaanee euh, danoo annulé euh, Jeux olympiques yi ñu waroon amal ca Tokyo une première en temps de paix paraît-il. voilà noonu noonu la demee loo xamante ni musul am mi ngi doog a am ci jamono ji nga xamante ni ci en temps de paix la ba mu mujjee am ci jamonoy guerre la woon 14 18 ak 39 45 ci ñaar yooyu lañ ko reporté woon ñu reporté waat ko li ko waral mën a jàpp ni beneen guerre la ndaxte ñëpp lii. di pandémie bi di Covid 19 ñu ngi koy méngaleeg lii di euh, troisième guerre mondiale ñenn ci bari loolu lañu ko jàpp ba démb nag c'est officiel euh, ñii di waa li nga xamante ni ñooy euh, waa Japon ñoo daal di waxtaan ak yow waa CIO ngir da dàq li nga xamante ni mooy Jeux olympiques yi ba deux mille vingt et un te loolu lu am solo ndaxte dina fekk ci période yi nga xamante ni dëkk yu bari dañ doon xeex lii di daal di jéem a fexe. nu ñu mën a dàqee Jeux olympiques yi ndaxte ñu ci wax naa ko démb wala bërki démb ci mardi bi ñii di waa Canada dañ doon dàq lii di dañ doon wax ni ñoom seen athlète du ñu dem euh, waa Australie dañu ba wax ni tamit seen athlètes yi du ñu dem te ñooñu bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoo ëppale wala bokk nañ ci ñi euh, dëkk yu ëppale délégation ci ay ay athlètes ci Jeux olympiques Jeux olympiques euh, nekk na sport bi nga xamante ni tamit yi ñu bokk na ci sport yi ñuy gën a médiatiser donc nag ñi ngi xaar conséquences économiques yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ni ñi ngi ko jàppoon ci été bi ci diggante mois du ak septembre fële ca euh, Tokyo ca Japon mais finalement reporté nañ ko mu nekk lu bees loo xam ni euh, mi ngi doog am gannaaw ñaari guerre yi nga xamante ni donc mën nañ jàpp ni Jeux olympiques bi ñu reporté lu bees la lu historique la gannaaw en en tant en temps de paix et puis euh, am na challenge boo xamante ni sportif yee ko euh, créé euh, jël mouchoir yooyu la ñu tuddee PQ nga xam ni ak crise coronavirus bi daanaka dafa manqué ñun fii Sénégal ndox la ñuy raxasoo waaye ñoom tubaab yi d'habitude mouchoir yooyu la ñuy raxasoo wala di ko fompo bu ñu demee ci gànnuwaay ba pare gis nañu ni sportif yi dañu ko jël di filmer seen bopp di ko tël ñëpp gis nañ ko ci réseaux sociaux yi euh, ku ci nekk di jël euh, papier PQ yi maanaam yi nga xamante ni ni joxe nga euh, explication bi yi nga xamante moom la ñuy utiliser ngir di ko def ay papier toilette ku ci nekk nag moom la jël ngir fexe wane ni nii nga toogee sa kër maanaam maanaam di joxe di lancer message ñi nga xam ne ñoo ne di suivre wala ñi nga xam ne ñoo bëgg football wala sport en général nii la ñuy toogee seen kër nii nag lañ mu nekk benn challenge bi nga xamante ni wër na àddina ñu gis ci star yëpp ku ci mel ni Lionel Messi ku ci mel ni Cristiano Ronaldo ah ñoom Sadio Mané nekk ba ci sunu El Hadj Diouf national bi nga xamante ni tamit euh, challenge am wër na àddina en tout cas mën na jàpp ni sportif yëpp képp ki nga xamante ni footballeur rek di fàttali ni compétition yu mag yi ci football yëpp au delà des championnats yi nga xam ni suspendre nañ leen yenn sport compétition yu mag yëpp dañ leen daal di reporter te lii dina tax ñu occuper un peu euh, sportif yi ndaxte ku ci nekk boo wonee sa séance d'entraînement ba pare da ngay def ñëw ci sa ci sa challenge bi nga xamante ni mooy stay euh, ak mu nekk li nga xamante ni euh, benn message boo xamante ni ñoom ñëpp dañ ko passante partout dans le monde à travers les réseaux sociaux te gis nañu sportif yëpp ñu ngi ciy jàpp di wane ñoom ñëpp ñu ngi des seen kër benn message la boo xamante ni dafay insister ñi nga xamante ni ñoo bëgg sport wala football en général ñu mën a gën a mën a toog seen kër ngir fexe xeexandoo lii di Covid 19 bi Pape Cheikh. Euh, toogal sa kër bu ma la soxlaa naa la woo merci Mamadou Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax et puis euh, ñu ngi xaar seen ay vidéo ci euh, stay at home challenge bii ñu def est-ce que am ngeen ay mouchoir ci seen i kër Mamadou Ndiaye. maa ngi maa jëlal Sorou Lo nga après nga yónnee ñu vidéo bi merci beaucoup en tout cas pour ces infos euh, yi nga ñu jox donc Mamadou Ndiaye lañ doon jokkol à partir de chez lui avec son de café c'est bien fi mu nekk nii yaa ngi kokkali waaye coronavirus moom léegi mu jeex segam euh, Wuhan euh, dëkk boobu la nga xamee ni fa le virus bi tàmbalee ñooy uh-huh. waaj a ibbi seen ay dëkk waxatuma laak Sénégal ñoom nag li leen may dem ba feebar bi wàññeeku fa amatuñu ay ka ñi doon faatu faatootuñu discipline euh, moo leen ko may euh, seen gouvernement bi mu jëlee décision ni euh, dafay tëj dëkk bi et que mu demandé à ñi dëkk ci Wuhan ñu toog seen ay kër ñoom dañu ko respecté dem ba nga xamee ni feebar baa ngi fay wàññeeku image yi moom ngeen di gis foofee nga xamante ni moo di Wuhan ab dëkk bu nekk Chine rappelez-vous pour la petite histoire fii le virus bi jógee escale Europe yegg si Afrique Euh, boobu nag ba tey jaaxal na àddina wërngal képp ñoom nag euh, fi mu tollu euh, tembe daanaka ñu ngi ibbiwaat dëkk bi ndànk-ndànk am na ñoo xamee ni amuñu amatuñu woon possibilité du duggaat ci dëkk bi waaye depuis démb ñu ngi bind ay autorisation ngir gën a mun a duggaat ci dëkk bi ñu leen koy autoriser et que ñu ngi ñuy xamal fileeg ay fan dinañu ibbiwaat dëkk boobu boobule carrément loolee doon lu dal xel Euh, foofee ca Wuhan euh, ci évolution wu feebar bi li nga xamante ni moo di coronavirus bi am na ay euh, doomi Sénégal yoo xamante ni ñoo nga fa lu ci ëpp ay étudiants la ñu ñun ñu ngi leen di xalaat yàlla na sunu borom taxawu leen ba kenn du ci am feebar bi li nga xam ni moo di coronavirus. donc regardez ces images ñoom bu ñu demee ba feebar bi lawatul ci dëkk boobu la nga xam ni dëkk bu sensible la woon fan yéle li leen ko may mooy yar. ak discipline ak respecte euh, dogal yi nga xamante ni euh, seen gouvernement euh, def ko jël donc Wuhan ki donc qui va sortir bientôt de ces deux mois de confinement parce que ñoom toog nañu ñaari weer yoo xamante ni dañu waxoon askan wa yëpp ñu toog ci seen i biir kër gis ngeen image yi mooy wane ni Wuhan googule c'était une ville morte kenn daaw fa dugg kenn daaw fa génn ña fa dëkkoon ñëpp dañoo toogoon seeni biir kër ndax dañoo restreindre déplacement yi nañu ko lever euh, fileeg le 8 avril il paraît et ça permettra peut-être au Sénégalais euh, étudiants qui sont là ba de venir en vacances pourquoi pas euh, fii ci Sénégal loolee la ñuy ñaan pour dëkk yëpp moo xam France moo xam Italie moo xam Espagne moo xam États-Unis yàlla na sunu borom jàpp ci combat bi ba saafara juddu pour képp koo xam ni rek da di ab citoyen